koy yëkkatee mu jëm ci sëriñ moodu Mbacke si mii nga xam ni moo jiite karawaanu màggal bi ñëw fii Dendey tey te karawaan bi ñëw ci biir liggéeyub sëriñ Mouhamadul Bassirou Mbacke moom sëriñ Abdou Khader ak ci biir liggéeyub sëriñ sëriñ Abdoulaye Mbacke moom Cheikh Amadou Gaïndé Fatma waaye mu mel ni li waral tànk yi lépp ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha ci ngeen koy dox ngeen ñëw fii ci Dendeye ñu di leen dalal jàmm di leen defal rek ahlan wa sahlan muy kàdduy dalal kàdduy dalal lañu leen di defal waxtaan wi la ngeen soxla ci Cheikh Ahmadou Ndoumbe xaban bu ñu demee ci jumaa ja sëriñ Ousmane Mbacke dañu leen ko defal ni ngeen ko bëggee fii ngeen ñëw nag boroom ëtt bi mooy Cheikh Ibrahima Mbacke mooy Cheikh ma Ndoumbé ci kaw suuf ku bàyyi xel seen ñëw gii la ku ci am yëg-yëg la waaye xat-xat ak ñu ñeewantu ko ci jotaay bi moo tax mu jël lépp teg ko ci loxol jëwriñam di sëriñ Cheikh Bintu Mbacke sëriñ Cheikh bi ngeen ko waxee ni dañuy ñëw ba nëga ni amul benn yitte bu dul li fi seeni tànk ngeen am ko ni ngeen ko bëggee loolu moo waral barab bu nekk ak na muy doxe dëkk bii di Dendey sëriñ Ibrahima Mbacke da ko teg ci loxol sëriñ Koso Mbacke mii moo yor baat bi moo yore liggéeyu jumaa ji moo yore lépp moo waral comme Dendey ngeen di ñëw di xadara Cheikh Ahmadou Ndoumbé Xabaan mu wax sëriñ Koso na leen dalal ci kàddoom la ñuy wax ci turam lañuy wax njabootu Cheikh Ahmadou Ndoumbé gépp nag teew nañu mbooleem kër yi kër Cheikh Ahmadou Ndoumbé yëpp teew nañu kon daal ci tënk njabootu Cheikh Modou Xabaan gépp waaye njabootu Cheikh Ahmadou Ndoumbé gépp ñoo àndandoo bàyyi lépp luñ jàppoon ñëw teew fi ngir dalal leen ànd ak yéen bis bii nga xamante ni bii ñëw ngeen ci benn pàkk ci pàkki sëriñ Touba yi. li nga xam ne nag moom laa ci wax mooy ci kàddu sëriñ Koso. ñu ngi leen dalal jàmm bu baax. incha allahu waxtaan wi day doon waxtaan woo xam ne dafay ànd ak teg baaraam ndax kilifa mën ngaa wax ci moom lu baax lu yéeme waaye wax ju nekk bu amee firnde dana dimbale ñi koy déglu. ngëm nga mën a yomb moo tax dama leen di tënkal rek Cheikh Mandoumbe mii ngay ñëw di gëstu si mbiram ñun ñëpp xam na ni yoonu murid day bu fekkonte ni am mbaar la dañuy wax ni yeen ci jën yi ko téye mooy jën wii di ak dëggal ak bëgg sëriñ bi ak liggéeyal sëriñ bi ak àddiyaal sëriñ bi yenti jën yooyu moo tee moo tee yoonu murit yaari jën ya nag gisuñu ku ci nekk ci kanamu Cheikh Ahmadou Ndoumbé te fu wér lañ ko teg ay find yu wóor la jën woowi di haddiyal sëriñ Saaliwu Mbàkke ci boppam de moo wax ni ku tedd ki di Seexul Xadim wax na ni Ahmadou Ndoumbé li ma jox kenn joxuma ko njabootu sëriñ Saaliwu ñu ngi fi ay jëwriñ ñu ngi fi ñu yàgg fegg ay kàddoom ñu ngi fi toog ñu ngi ñu ci kaw suuf kon day dëppoog li ñu wax ni ab junni mooy ki ko njëkk a jox ko sëriñ Touba Cheikh Moussa Ka bind na ko moo njëkk a fab junni dërëm booleeg wurus wunu naa ngalam teg ci loxol ba magam mësta sàkkul àdduna kon addiyee moom day tegtale ni Cheikh Mandoumbe jafe na lool nga gis ku nekk ca kanamam ci nim doon doxe ci wàllu addiya liggéey bi fanweeri gëléem ak juróom daana bàyyi ko fii ñuy sëf dugub di ko yóbbul ko tedd ki ca sàq ma nekkoon daaru xuddoos ci diggante kër sëriñ abibu ak kër sëriñ soxna xadi gay na soxna xadi faat ma sàq ne daana ko duy ba mu fees ak pepp njabootu sëriñ tubaa daan ko jëfandikoo di ko saafara woo loolu yi taxoon na mu dem ba sëriñ bi defoon ko mu nekk jëwriñu képp kuy tërbiyewu di wut ngërëmul yàlla ci toolu sëriñ tubaa ba bis mu woo ko mu ñëw mu bind leetar ni ko ahmadu def naa la jëwriñu képp kuy wut ngërëmul yàlla Cheikh Moussa Ka bind na ko Bamba ko jox mbindum loxoom ne ko sasal ma say moroom jëwriñ nga tool bi yaay boroom jaxaari baykat metti na kon addiye bi leer na liggéey bi leer na yaar yooyu nag munta am lul dafa lalu ci kaw ak dëggu akuk bëgg kon loolu rek laa leen mën a junjal ci kii ngeen fekk ci Cheikh Ahmadou Ndoumbé Xabane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 ba tey tamit bu ñu demee ci wàllu wàllu nday gi da nga gis ne ku ñuy wax maam daan maam daan na ñang góor la woon waaw am na ñu wax ne sax mu ngi tuddoon maam Ousmane moom moo jur ku ñuy wax ndumme ñang ak baara anta ñang ndumme ñang moo jur maam astawaalo mii way juru soxna jaaratulaay mii way juru ko tedd ki baara moo way juru soxna ndumme ñang mi nga xam ne moo jur Cheikh ma ndumbe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 mu ne day laxas ngir dolli ab xamam ak yokk ko ci la jàlli dem nag ci patar fekk waay juram sëriñ Mamoor Anta Sali ca daara ju mag ju da université booba nekkoon foofu waaye ba mu demee fekk am lu ko lëkkale woon ak sëriñ Tuubaa ci ak bokk ak cofeel gu ñu am seen diggante mu daa ji féetewoo sëriñ Tuubaa am njàng mépp mu jànge ko ci moom boo xoolee sëriñ Mouhamadul Amin Diop dagga ne mu wax ne njàng mu kawe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 benn yitte benn bëgg-bëgg la am mooy liggéey jox sëriñ tubaa te saxoo jaamu yàlla guddi ak bëccëg suba ngoon sëriñ xabibu nekk ci paas di dox doxin wu mel noonu liggéey doylu bëgg sëriñ tubaa bëgg ma Ahmad mu mel ni li ñuy wax jaamu yàlla ak liggéey moom ibaadatu wal xidma daal nga xam ne moom la ma Madu doon nekkoon loolu rek ci la njaboot gi nekkoon sëriñ Madu wax na ne bu masaa génn ci jàkk ji ci kër gi jàkka ja lay jëm bu leen demee saam da ngeen ko gis fa mu ko tàmbale woon bu jullee fajar ba nopp daa ji dem tool ya fa lay nekk ba timis bu timis jotee mu ñëw jaar ci jàkka ja julli nekk fa di wirdoo ba ju ba julligee dem ci kër ga ñu ne day dallu waaye wax na ne foo ma saa toll ci per ya wala nga romb fa yaa ngi dégg kurus ga daan di dal wala baat ba di riir di sàbbal yàlla wala muy jàng alquran dawul noppalu musta noppalu moom sëñ bi du dawul boole ibaadatu wal xidma ba mu demee ba nga xam ne ci dëkk bii nag di dendey sëñ Mamor dendey moo ko fi wuutu moom it yore liggéey bi liggéeyin na ko way juróom wa yore woon mësta am ak bëgg lu muy liggéeyal sëriñ Tubaa lépp lu mu am nanga nga way juró daan doxe lu mu bay moo dong yi lépp mu jox sëriñ Tubaa booba sëriñ Abdul Ahad Mbàkke la fi bokk nekkal wax nañu ne bis ñi ko woon ñi ko fekkee sax mën naa am mu nekk ñu nekk ci jataay bi sañ Mudu xam sëñ sëñ Abdul Ahad wax ko na ko du pepp la la soxla dugub wax nañu ne bañ ko ko waxee dafa teggee noonu ba mu ko wax ko dafa teggee noonu dem Daaru Xaddim ndax dafa sañ dëkk boo xam ne ngir yaatal liggéey muy Daaru Xaddim bi sëñ Mudu Xabaan wàccee ci 1975 76 nag mu daal di sañ ci Daaru Xaddim ni bi mu demee daaru xadim dafa teggi wax dong yi ne leen na ñëpp bay dugub ñëw fi yenn ñëpp na ñëpp wax ko dong yi fii nee na bu mbay mi sottee ñu mu mu yónnee ci sëriñ Abdul Ahad yaakaar naa sëriñ Seex bint mu juumul nee na moom la yónnoo wax ko na ko nee na na indi junni saako sëñ Abdul na ko junni saako nga wax de mu ne ko junni saako te wax na ne saako yooyu saako yu mag la yoo xam benn bu ci nekk li muy def dana ëpp bëri ko waaye wax na ne dañoo duy junni saako yi ba mu fees bay duy sax ay kab yoon di indi di ko sottil suñu ab laar kon fii mooy fi nga xam ne rek suñu sang bu tedd bii di sëriñ Kosso Mbacke ni mu ko waxee woon ni bi mu ak sëriñ Ousmane Mbacke kon nekk wax na ko bi ku ki yëgee ci boppam dara daf ne nañ mu indi dende fii nag ay tool rek la woon dëkk bi moo nekkoon saam fa la kër ga nekkoon ni ko sëriñ Kosso Mbacke waxee su fajar masaana jot mu julli fajar Euh, Serigne Makhtar Seyloo moo daan jiite bu xëyee bu jullee ba génn ci buntu jàkka ji fekk na ñaari góor yu taxaw ku mel ne Baye Samba Loum ak ku mel ni ki Baye Moussa Loum ñoom ñoo daan takk naaru góor wi mu war ci ñëw fii fi dëndee yendoo liggéey ba ngoon mu dellu Cheikh mu ndumbe xabaan li gën a yéeme ci moom ab jant mosu koo fekk biir këram mhm. lu dul ni ngànt la wala bisu it wala lu mel ni ko loolu jant moom buy génn balaa fajara jot balaa jant bee fenk génn na saam ñëw fii buy delluwaat jant bi dana fekk mu dugg fii nag bi mu yëgee dara ne ko sëriñ ko sa mbakk waxee fii la néeg bi nekkoon ngeen jàkkaar lool mu ne nañ ko fi indi sëriñ Moussa Diouf ak sëriñ Saliou Fall ñoo ko indi mu nekk ci biir mu yàgg mu ne nañ ma wol Moussa mu ñëw mu ci loxoom teg ci mbaggam ne ko Moussa mu ne ko Mbàkke mu ne ko bu ëllëgee mboolem ñi doon xëy ci toolu gu yàlla toolu tërbiye di wut yàlla di wut ngërëmul yàlla ak Serigne Touba man Ahmad Ndoye maay seen jawriñ ëllëg te na ngeen xam ne bu ëllëgee foofa ngeen may xam ndax jug musuma xëy benn yoon wala ma gont ngir àdduna lépp bi sa ëllëg moo tax ma di ko wut sama borom defal na ma loo xam ni waxuma ku ma yaakaar waaye bépp xol boo xam ne xar nañ ko fekk ci bëgg Cheikh Ahmadou Ndoumbé wala bépp jëmm joo xam ne fekk nga sama koog mu teral ko kooku ñaan naa sa boroom bu ëllëgee ñu sédd ma ko ma ràmm ko ba yàlla may na ma loola. fii la wàcce woon nag muy néeg bu tedd bii nga xam ni moom ngeen ñëw siyaare kon Cheikh Ahmadou Ndoumbé Xabane yàlla nañu ko yàlla doole fayal. dolli ñu ay leeram bu baax a baax. te taas ñu ci barkeem. wasalaamaaleykum. ñoo ngi fii ci li ñuy wax Daxaaru Saam gii nag mën nañoo wax ni fi la ko tedd ki daan faral di jóor ay rakkaam waxoon naa leen sànq ni leen nitug dafa boole woon xaqiqa sariya ak xaqiqa mu mel ni foo ñu jóge muy dënde fa la daan liggéey ay junni junni bari ko di ko jox ko tedd ki seewul xadim waaye bu gudd jotee ba ñëpp di dallu fii lay takk ndigam jàkkaarloog boromam di wéetal boromam ba fajar jot daqaar gi ku ko fi mës a fekk ak sa bët bu xonq bala nga fay jóge sa bët weex na nit musu fee dugg ak ajo lu dul ni ajo ja faju na jëmm ju ne fekk na ko ci ron daqaar gii mu faj say aajo waaju baax ju ne fekk na ko fi Cheikh Mouhamadul Moustapha bi ma ñëw Cheikh Ousmane mi ngi koy wax wax ni fii ci ron daqaar gi Cheikh Mouhamadul Moustapha taxaw na fi nii boroom Dakar gii de lu baax ci yoon yu moom la lu fi defaru moom la kon Dakar gii bëri na ci mag ñi ñuy wax ni man dey bu ma demoon ba gisatuma lenn lu bokk Cheikh Ahmadou Ndoumé Xabaan su ma jëlee sama addiya dem ba ca daqaar ga magas ba mu xóot ma ma suul ko gëm naa ne sëñ Ahmadou Ndoumé jonn ci daqaar googu mooy gii daqaar goo xam ni ku fi yàgg wéetal boromam la sëñ Ibra Xujja mi nga xam ne mooy Cheikh Ahmadou Ndoumé Xabaan ci kaw suuf moo wax ma dégg ci gémmiñam mu ne Cheikh Ibra Fall jóge na nii ci booru xuru Mbàkke di ñëw ñu di ko séen muy feeñaka nëbbu ndax xur moo nekk ci yoon bi ba mu yàgg moo leer na ni Cheikh Ibrahima Fall la bi mu ñëwee ba egsi ci daqaar gi ñu nuyoo mbooloo mi may leen ñu ànd taxaw ci ron daqaar gi ñu waxtaan seen waxtaanu biir ndax ñu jaxasoo woon lañ ñu bokkoon ay yéene leen Cheikh Ibra ne ko Ahmadou mu ne ko Mbacké mu ne ko man de am naa lu ma yéem mu ne ko lan mu ne ko seen diw mbooloo mi ni mu bëree de yéem na ma waaw lu waral loolu Cheikh Ahmadou Ndoumbe ne ko ah Ibra Fall mu ne ko Mbakke mu ne ko bu la jaaxal jënd ak may bokkun maag yow dañoo jënd te ku jënd la nga jënd yaa ko moom li ñu yor ba keroog ñuy wal boftu bi du ñu teqali moom keppaar gi ba keroog ñuy wal boftu bi jëmm juy laxasaa yi du liggéey di jox Serigne Touba du fi jug moo Cheikh Ibra dañoo jënd loolu suñu borom moo ma ko nettali ni ci Dakar gii la xewe woon kon Dakar la koo xam ni sëriñ Modou yaa ngi may wax journaliste yi li ngeen def am na solo ñëw ci waaju baax waxtaane mbiram jàqi ay jalooreem jénne ko nit ñi xam ko roy ko jariñu ca liggéey bu gën a rëy boobu amul ni xob yi toll yàlla na seeni xewal tollu yàlla na suñuy xewal toll ku fi mës a ak saafara saafara wu na ku mu soob muy biir buy metti muy bopp muy lu mën a doon roccul yóbbaale di nga xam Cheikh Madoumbe mooy kan kon nag ko rek eh. kon nag waaw waaw waaw bisimilah ko yàq yàq ñëw ñëw ñëw si ñëw ñëw bàyyi ko mu ñaari baar rek laa lay ah, waaw suñu lubee jóge na fii fekk Cheikh Ibra Fall fii xuru màkk gane ji ko bay ñëw bay ñëw si waat saam gii Cheikh Ibra Fall di ko gunge suñ ma nu mu néew ko mu mënut a wàññee ko suñ ma nu muy néewul ko wàññee ko mhm. ñuy jëw rek di jëw rek di dox ba mu yàgg mu ne ko mu ne ko jël mhm. ba fa ñu wàccee ba mu bañ tàggoo ba seex daal wàññee ko ne suñ ma nubbee moom muus mun waaye mu ni fu ñu tàggoo rek ba yoonu saxaar gi jaar fii mu ñu tàggoo tey ba léegi fi lay jaar. dox na ko ñaanal sëñ